jamonoy màggal gi askan wi jaaxleetuñu si Touba ndax tey lu tolloog fanweeri ton si ceeb la àll si la jébbal mbokki taalibe yi militant yi ak dëkkaale yi loole nag di lu mu yàgg di def da ko tollanti jamono ji ndax jàpp na ni kat fii lañ ko soxlaa. ñun liñ ci jublu mooy liñ ci daan jublu rek sant sëñ Touba sant lee ko ci besan bi loolu lañ ci jublu jëkk dafa fekk nag moo am ci luñ doon yëngu liñ doon yëngu nag tamit war nañ cee mën a wanewaale suñu bopp. danañ ci liggéeyal sëñ Touba danañ ci liggéeyal tamit comme parti bi nga xam ne moom lañ àndal bëgg nañ ko wan ko ñun suñuy militant daal fas fas nañ yéene duñ namb dara daal luñ am nag jël mais leneen luñ amutit ñun danañ fexe ba li liñ mënal suñu bopp ñu di leen ko defal loolu daal bokk na ci li suñu jublukaay. ceeb bu dijj la ñuy joxe joxewuñu ceeb boo xam ne dafa am tànn wala ceeb boo xam ne dafa kii ceeb bu dijj la ñuy joxe muy saagu 30 kilos yi nga xam ne ah, population yi taamu nañ ko lool moom la nit ñi soxla moom lay jël jox ko ñi nga xam ne ñoo ko itteewoo dañoo bëgg daal màggal gi képp ku koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi nga sentir sa bopp yëg ni kat Alla Sylla mi ngi jàppale euh, euh, population wu Touba comme ni mu ko daan defee naka jekk. ñi ñëwoon doon jël si seen ceeb amal seede si jëf ju rafet ji nu jàpp ni ki ko def moom kat jii na leen ngor bu dee si wàllu politique ñoom de joxe nañu engagement bu mat së sant ko ànd ak yéene. ta lii yëpp moo ñu ko ji nag ndaxte ñun karaw ba ñuy ñëw daw daw di ko topp si lu ne gis nañ ko nax yu ne gis nañ ko waaw li am yaakaar gi ñu am tu moom nag yàlla bu ko yàlla tas yàlla na ko yàlla jàppale jàppale mboolum jullit bu topp ci moom képp ku ko nar tas yaakaaram da yàlla na ko gis ñu ne fas yéene nañ topp ci gannaawam nag ba fu mu yem neex di ñaan yàlla nag toog ba di ko nettali ay ati ati ati ba tey si jogoñaale yi àlla silla yi responsable des femmes bii di Awo Fall ne nag ceeb bi dinañ si jébbal wàllu yaatu groupement de femmes yi ndax nag ñoom seen base affective bokk na si wàllu jigéen ñi nga xamante ni dañoo gëm àlla sila te yaakaar ko si wàllu politique. c'est pas la première fois mu koy def nekku ni tey la ko soo ko tàmbali ci màggal màggal bu nekk da koy def waaye tey dafa jot nag tey jii ak taxawaay bi mu si am tey ñu fësal ko. moo tax tey ñu fësal ko kenn ku ne xam ne lii daf koy def ci koor gi di joxe suukar suukaru koor di joxe ceeb màggal tubaab bi tamit bu ñëwee tamit nii la ciy taxawee te 30 tonnes tooj ceeb yi nga xamante ne moom la fas yéenee jox askan bi jigéen ñi am nañ si part boo xamante ne bu am solo la ndax kenn ku nekk xam na ne dafa fonk jigéen dafa teral jigéen te fu mu wootee jigéen ñaa fay ëpp. ndaje bi occasion la woon ngir mu ñëw si wàllu parrainage yi am nu jàpp ni sax moom dafa jëloon yoonu boppam. moom nag indi na si ay leeral gis nii dafa bëgg wane boppam sa la mu mënee si diwaan bii ndax nag liggéey bi mu amaloon processus bu muy mottali la si parrainage yi la ko mën a wane ay jógeñaaleem jàpp ni sax nag lu nu mel su ko àll si la defee dafa bëgg wanewaat ni liggéeyam amul benn takk-takk te leer na te nag ñu ni ñu ngi joxante rendez-vous bu ministère de l'intérieur pareil si càmbar bi ñoom jàpp nañu ni yooxu dina jub fun ko foogewul. waaw xam nga man dañ doon natt Euh, dañ doon def nu ñu koy tuddee kii prénance pour bëgg kenn ku ne xam li nga man euh, bi ñu ko defee nag xay na am nañu ragal daw dem booloo laqatu kenn ci ñi mu tudd la nga am ñun nag dañoo bëgg a taxaw tudd li ñu am bëgg cee wane waale suñu bopp doxu ni nag ñun dañuy beru mais nag teewul nag moom fi ñu toll nii mooy kenn ku ne da nga wane sa bopp ba nga xam ne am nga loo man mooy fiche si gën a leer gën a leer laa wax te loolu bu pënd bu wuree dinañ ko xam lu si gën a leer jàpp naa ne bépp responsable bu nekk département de Mbacké laa moo ci gën a leer le bi ci topp ay coalition lañ fi wax ak jamonoy màggal gi Alla Sylla ñëw jàppale dëkkaale yi am di jàmm yi soppe yi rawat nañu muy liggéeyal ci wàllu politique ci tonage ceeb bu takku boole kook ay enveloppe ak yeneen xeetu dimbal